ki doon yonentu yàlla Muusa foog karaamaam ya moom waliyu ba niroog karaamaay yonentu yàlla Muusa ki doon yonentu yàlla Isa tamit karaamaam ya di niroog yonentu yàlla Isa demeet ba yonentu yi jeex bañ ko seetee nag Cheikh na Tidiane yi mooy ki nuru yonentu bi ci waliyu yàlla yi mooy ki ko gën a niru ci waliyu yàlla yi moo tax bu la neexee bankal sa baaraam ñaar fukk ya fa ko tegtale yoo xamee na nii benn bu ci nekk boo ko yéree ci yonantu bi boo ko xoolaatee ci wàllu yàlla yi seex rek nga koy fekk waaye ñaar fukk yëpp du ci xaj danaa la ci jukkil juróom-ñeent bi ci njëkk yonantu bi la yàlla jagleel ak tëbb géej gu ñuy tuddee nubbuwatu ku ci mosa naan ca jamonoy aadama ba ci sayduna isa yonantoo la nàndal bu tëjee robinom bi ñoom ñëpp mar yonantu bi moo tëbboon yonantu yàlla aadama tur ba taxoon mu xamoon ko ba koy xamal malaaka ya moo tax yàlla ne wa allama aadama al asmaa kullaha ba mu leen ko xamalee nag yàlla ne ñëw leen ngeen màggal seen maître bi usgudoo li aadama sujjóot gi aadama moomut ko xaqiqatul muhammadiya bi nekkoon ci aadama moom moom sujjóot ba ndax moo tax aadama xam tur waaye tamit bul fàtte na yonantu bi moo tëbboon yonantu yàlla suleymaan ba taxoon mu mënoon a dégg waxi picc waxi picc neexul dégg booy wax ak nit sama sa waxi picc yii waaye nag suleymaan yàlla da ko may mu dégg waxi picc ba alquran ne wa allamnaahu mantiqa tayri looloo waraloon mu njëkkalee yonantu bi ba muy def tukkee mu siiw ma ànd ak jinne yéeg njanaaw yeeg bàyyi ma yeeg ba yegg tey fi ma dinatul mun a war a nekk mu ne taxaw leen fii ma taxaw mooy nekk kër ak gàddaay ak mujj ak yonantu yi ba mu paree mu ne leen ku ko fekkee ci yéen na ko màggal te jotal ko sama nuyoo ak maanaam sama ngëm ak sama fonkate ci moom moom tamit moo tëbboon yonentu yàlla yuusufa ba taxoon mu mën a firi gént lu waay gént boo ñëwee ci yuusufa rek mu wax la ca lu la yéem ba alquran ne wali nu allimuhu min taawilil ahadith tabaarakallaahu ba ñaar ña bañ géntee ci moom kii ne ko dama gént yenu benn teng-teng mu am mburu ay tan di ca cop mu ne ko loolu li muy firi balaa yàgg danga nga génn ñi rey la dañ lay pàndar tan yi cop sa bopp bi kii ne ko dama gént di nal inab mu war a dellu ci sàngara mu ne ko yow balaa yàgg dañ la tijji ngay nalal buur bi sàngara di ko xelil kon sàngara muy naan parce que inab la ñuy nal ba mu ko waxee loolu ñoom ñaar ñu mujj ne ko ñun gént ñu dara parce que lim leen lim leen firil neexut mu ne leen gént ngee géntu leen li ma leen wax dara mënu koo dindi quddiyal amru lazi fi yi kon moo ko ko tëbboon ba mu foor ci firi gént firi gént nag lu jafe la bari na ci jamono ji nga gént dara ñëw ci nit mu wax na ko neexee rek mais yenn cër yi ci yàlla boo ko amut mënuloo firi gént benn waay moo gën a bari mooy fe mooy firi gént ak bukki moo bari ci ji jamono waa ji dafa gént ne dama gént yenu moom bukki ne dama gént yenu sayu ñax dem ci sëriñ bi ne ko ah man dama gént biig yenu sayu ñax bu rëy mu ne ko loolu de yàpp la mu ne ko sëriñ yaa bëri xam-xam yàpp rek mu ne ko nag li ma jaaxalaat ma jëlaat beneen sayu ñax tegaat ko ci kaw say booba mu ne ko yee eh, boobu baaxul dee la mu ne ko waaye ma mbas ko sonnu ta yegg si kon façon firi gént googu moo fi bari kon moo moo tëbboon aadama Isa ñoom ñëpp ku ci naan ci géej ak nubbu wa rek yonentoo la nàndal kon ki ko war a donn ci waliyu yi moo war a nàndal waliyu yàlla yi moo waral waliyu yàlla yi li ko doree ca aadama ba ba ñuy walee bufta bi ku ci naan ci géej ak wilaaya Cheikh na Tidiane moo la nàndal bu coupé robinam bi ñëpp mar moo tax waliyu li ñuy bari bari wax ji ma wax ma bëgg a wax seex rekk ko mas a wax kenn mësu ko wax li ko paase ci jamonoom kenn waxut ko ba bay àdduna tukki dootoo dégg di ko ko wax seexa mos a toog taaliba yi wër ko mu def ñaari baaraamam yi nii ne ruuxuhu wa ruuxi hakaza ruuxuhu tumiddul anbiyaa wal mursalin wa ruuxi tumiddul awliyaa wal aarifin bala ngaa dégg ko waxati loola mu ne sama ruuxu gi ak ruuxu sayduna muhammad gi nii lañ mel comme ñaari baaraam yi ñu ne ko ci nan mu ne ruuxu yonantu bi moo tëbb yonantu yépp sama ruuxu gi moo tëbb mbooleem wëllu yàlla yi moom kenn moo ko mos a jëme looloo waral mooy mu middu bi ahlillaahi ajmaihim mooy minhul futuuxu li arbaabil futuuxaati waaye ñaareel ba yonentu yëpp baax nañ kawe nañ yëkkatiku nañ daraja waaye yàlla la soob mu jël darajaay yonentu bi mu tiim darajaay yonentu yëpp alquran wax na ko yonentu bu ne fi sa may yem foofa la may ak seyduna muhammad dooree jëm kaw moo tax alquran ne tilka rusulu faddalna baaduhum ala baadin minhum man kallama allah wa rafaa baaduhum darajaat wa rafaa baaduhum darajaat nag mooy sayduna muhammad moom la yàlla def mu yëkkati darajaam ja mu tiim daraja yépp kon ki ko war a donn ci wëliyu yàlla yi darajaam ja moo war a tiim darajaay wëliyu yàlla yépp li ko may du wér yonentu bi bi yàlla wane ne darajaam jee tiim jaay yonantu yi moom da ko waxal boppam tamit ci xadiis wax na ne aadamu wa man duunahu taxta liwaa yi yowmal qiyaama aadama ak moromam yeneen yonantoom yépp sama ron drapeau la ñuy nekk ma tiim leen kon day tekki ne moo leen gën a kawe su boobaa tamit ki ko war a donn war naa wax wax ju niroog moom li ko moy duñ ko mën a dëggal Cheikh na Tijaani mi ko donn moo taxaw gaa yi taxaw toog mu mu mu jël ñaari tànkam ya dóorante ko ne xadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin min ladun aadama ila nafqi fi suur dootoo déggati ko ko wax mu ne sama ñaari tànk yii teg naa ko ci joggarey bépp waliyu yàlla ca jamonoy aadama ba ba ñuy walee bufta ba bi seex waxee lii moo woowal boppam ne ana muhammadul xaali ñu ne ko ma nga fële mu ne woo leen ko mu ñëw muhammadul xaali ñëw fekk seex toog mu ne ko dama ne sama ñaari tànk yii teg naa ko ci joggare bépp waliyu yàlla Muhammadul Ghali ne ko lii nga wax Abdul Qadir Jaylaani waxoon na ko Cheikh na Tijaani ne ko Abdul Qadir Jaylaani wax na dëgg mais benn tànkam ba la waxoon waxutoon ñaar ya de benn ba la waxoon te li taxoon mu waxoon benn ba ñett tax te li taxoon mu wax ñett ya taxoon da koo tënk ci jamonoom sama benn tànk bii teg naa ko ci joggare yi wëllu wi waaye wëllu wi jamonoom la ci namm te ñett tax jamonoom lépp moo ci ëpp xam-xam jamonoom lépp moo ci gën a rëy wilaaya jamonoom lépp moo ci gën a rafet aw askan waaye man nag dama ne sama ñaari tànk yi te dama ne min la dun aadama ila nafqi fi suur jamonoy aadama laa wax de ba ñëwal bufta ba Mouhamadou Xaali ku mën a laajte la gannaaw bi mu ko laajee danga nga màndeem da wuri ba mu pare mu ne ko waaw dama lay laaj ndax yàlla mënul bind beneen wëliyu bu la gën a foor jox ko may yu gën a rëy yim la may kooka wax lu gën a rëy lii nga wax seex sëgg ne ko nag karatanal yàlla la man naa bind yonantu bu gën a for sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko lu gën a rëy lam joxoon yonantu bi ba koo ko wax lu gën a la daan yonantu bi wax karatanal yàlla la man naa bind wëliyu bu ma gën a foor jox ko lu gën a rëy li ma jox ba koo ko daan wax lu gën a rëy lii may wax waaye ba ko kartan la ma ne coobare ja ko namut mu ne ko coobare yàlla namatut bind yonantu bëgg na a for yonantu yàlla muhammad coobarge ji tamit namatut bind wali yu bu gën a for Cheikh na Tidiane mu ne ko maa ngi toog a yow dootoo déggati ku ko wax ba tey kenn waxagut ko wallaahi ku wax loolu jaasay xaqiqa dagg sa doq gi xadamaa yahataani ala raqabati kulli waliyin min la doon aadama ila nafqi fi suur doo ko dégg ku ko waxati ba ca tegu nag muy ñetteel ba Cheikh na Tidiane yonantu yàlla muhammad mi mu donn sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla jagleel maqaama bu ñu tuddee xatmiya yonantu bi maxtuum la moo ñëw ci moom lañu ñu tëjee yonantu yàlla yi ba yonantu bi feeñee ba bay àddunay tukki kenn mënta taxawati ci kaw suuf looy def nga ne yàllaa ma yónni boo ñëwee looy wax moo waral moom mu bokk ca turam ya aaqib aaqib mooy tekki aji mujji moo mën a mujj ci yonantu yi kenn mënta ñëwati moo waral liñ doon soxla ci àdduna war koo soxla ëllëg ci àllaaxira yonantu bi jàngal nañu ko ku fi ñëwati nag man ngaa beesal mais ñëw na yàllaa ma yónni looy wax boo ñëwee ne yàllaa ma yónni ñu ne waaw kay yow la ñuy déglu léegi nag nga ne alif laam miim zaalikal kitaab ñu ne noppil bi ko yonantu waxee léegi ju neexat ak ñeenti téeméer bu mu jëm kaw looy waxati nga ne yàllaa ma yónni julli ñu ne bu ko waxati bi ñu ko yonantu bi jàng léegi léegi junne at ak nangam kon looy wax kon dama ne yonantu bi mooy mooy mooy maanaam wax xaatimin nabiyin moo mottali yonantu yàlla yi ñenn ñi su fekkee xaatam nga jàng mooy tampon bi ñuy tamponool yonantu yi ci seen xóot-xóoti mbagg yi ñoom ñëpp nag ci xóot-xóotam mbaggam ndeyjoor la féete woon moom kenn rek moo moo féetewoo ci xóot-xóotam mbaggam càmmooy Seydil Hadji Malick ci xilaas mu ne ay kawarako ko wër matut ñaar fukk muy misaal na mu may ñi ne gàmba pit ndena pitax ñi ne mi ngi mel ni xaafam maam yàllaak la ca aju waaye booba xaatam yonantu bi lañ ci mujj tamponel ba bay àddunay tukki du duñ ko tamponel di keneen kon ki ko war a donn moo war a moo war a mottali yonantu yi moo war a mottali kon waliw yi Cheikh na Tidiane nag ni mottalee waliw yi ni fe tekki ne ba bay àdduna àddunay tukki beneen waliw yi dootul amate gannaawam aha li muy tekki mooy feeñ na ci maqaamaab xatmiya ci maqaamaab kon wilaaya façon feeñin goo xam ne benn waliyu mosul koo feeñ ci lu paase ci lu teew ci liy ñëw ba jamono yi ba bay tukki kooku la ñëw tëj ko muy wilaayatul xaasa gi nga xam ne mi ngi tijjee ko ci jamono yonantu bi ba ci sayduna cheikh comme ni nga xamee ne Isa moo ñëw tëj wilaayatul amma dooree ci Adama ba ci sayduna Isa moo waral xadmiya nekkul canapé mais fauteuil la ñaari nit xajuñ ci kenn nit rek laata Cheikh na Tijaani di ñëw ñu bëri hoote hoon nañ ko waaye ku ko mos a hoote génn nga ca wala ñu génnee la ca imaamu Xasaasi yi woote woon na ko génn na ca boo ko seetee maanaam Mouhamad Wafa doomam ja loon ko ko waaye saxalut ko imaamu Sha'raani yi wax na ko génn na ca boo ko seetee tamit tabaarakallaahu eh, eh, Muhiddin Ibnul Arab woote woon na ko moom moom dafa tëdd ba guddi gént ñi tabax kaaba gi mool yi mooli xaalis la mool yi mool wurus la mu jàpp nag ba mu des benn palaasu mool mu tëdd fa ci gént gi palaas ba mat mu ne mooli wurus yi ñooy xutbu yi moo li xaalis yi ñooy wëlliw yi man mi mottali nag tabaxin bi ci biir gént gi maa mottali wëlliw yi topp mbedd mi di way ne binaa xatamalaahul wilaayata fantahat ilayna fala xadma yakunu laha baadi maa faasa bil xadmi ladi li muhammadi min umati wala ilmu illa anna waxdi waaye bi mu waxee lii tëdd ba guddi mu dégg kàddu goo xam ne gisul jëmmu ja ne ko laysal amru kama xanayta wata man nayta bal innama huwa lii waliyin fi axiri zaman ba génte gay jeex ñu ne ko wasa yakunu madd fu nan fii faasa dem na ne ko ni nga firee sa génte gi demee demeewul noonu de ni ko njortoog ni nga ko yaakaaree demeewul ko de ki war a mottali waliyu yàlla yi ñëwagut te bu ñëwee bu génnee àdduna faas lañ koy rob lii rek lañ ko xamal léegi nag mu commencé dugg ay xalwa di ñaan fu mu dem fu ne dem na fa lu ne mu def ñu ne ko nag loolu rek lañ la ci mën a xamal mu ne mën nag kon jébbal naa mbir mi ki nga xam ne moo ko formé woon mu yàlla kon nag kooku génn na ca kon maqaamaab xadmi ya ñaara ko am yonentu yàlla muhammad moo mottali yonentu yi cheikh na tijaan yi moo mottali wëllu yi dootoo gisati ku ko woote dootoo gisati mukk koo xam ne ku ko woote la wa laysa maqaamul xadmi illa li cheikhina wa laysa li gayri cheikhi fihi siwa daawa moom kenn kese bi ci tegu tamit maqaama bu ñu tuddee xadmi ya muy maktuum yonentu yàlla muhammad moo ko doon ci yonentu yi yonantu bi kenn xamu ko xam nañ ca waaye xam ko moom manta ne yonantu maktuum la moo waral Cheikh na Tidiane mi ko doon tamit di maktuum li lay xamal na yonantu bi kenn xamu ko Uwaysul Qaraniyu di taabiiyu bu baax bu barke boobu moo ñu ko xamal Uwaysu taabiiyu la waaye yonantoo toog benn bis rek oo maanaam Aliyu ak Omar ibnul ñu ñëw toog ak moom mu ne leen maa ngi leen di bëgg a bàttali lu ma ñor du ma fi fekk nag am na benn waay bu ñu tuddee Uwaysu nitu yàlla la ku baax la maa ngi leen di ñaan yéen ñaar dana leen fi fekk su ngeen ko gisee na ngeen ko nangeen sàkku ci moom mu ñaanal leen waaye na ngeen ko jotal sama nuyoo bi Omar ibnu Xataab toogee ci xilaafa gi at mu jot muy laaj ndax bani xaran aj si nañ ren wala déet ñu ne ko ren ñëwut beneen ba mu laajtewaat ko ba benn at ñu ne ko ah kay am na ñu ñëw ci ñoom mu ne woowal ma leen. ñoo nga def délégation ñëw mu ne dama leen di laaj ndax xamu leen ku ñuy wax Uwaysu ci seen biir am ku ne ko ah Uwaysu mi xam ne bokkut ak mi ngay laajte parce que kooka sàmmkatu gëléem la li muy nekk ci àll bi moo ëpp li muy nekk ci kër yi Omar ne kooka laa soxla ñu ne ko boo ko soxlaa faw nga xaar ba heure sàngam nga déeg dem ci déeg sàngam foofa lay nàndalee ay gàttam Omar ànd ak àll yu ñu dem tërlu ko sim tuuti mu ñëw Omar nuyu ko ne ko yaay kan mu ne ko maay jaamab yàlla bi mu ne ko ñu ñëpp jaami yàlla lañ loolu du tur. mu ne ko yaay kan mu ne ko maay sàmmkatu gëlëm bi mu ne ko du tur loolu métier la moom moom di ko nëbbu parce que nitu yàlla day nëbbu te yàlla tamit ay mbiram fuñ ko foogeewu rek la koy def ba mu ñëwee nag bañ wax ko loola muy naxanteeg moom bam ne ko maay Uwaysul Qaraniyu mu laaj ko ne ko yow yaay kan mu ne ko maay Omar ibnul Xattaab mu ne ko aka baax. kii nag mu ne ko mooy Aliyu ibnu Abi Talib mu ne ko ak baax mu ne ko ñi ngi lay jotal nuyoo hëb Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woy su ne leen ndax yéen xam ngeen yonantu bi mu ne ah kay ñu nag moom ma nekkoon mu ne noonoo yéen xamu leen yonantu bi xam nga ki ngeen nekkatoon ak takki ndeerab Sayyiduna Muhammad Omar laaj ko ne ko ba ci hatta mu ne ko ba ci Abi xamul yonantu bi takki ndeeram la nekkoon kon yonantu bi maktuum la kii ko jege ba mel ni Aboubacar xam na ca waaye xamul léppam ki ko sori ba mel ni ñun tamit xam na ca waaye nag taxul mu xam ko mu du taxul mu xam léppam moo tax mag ñi di ko firee ne yonantu mooy jant xam nga jant ñaari bët a koy xool waaye ñaari bët yi koy xool yépp xamuñ jant bët bi ko jege di ko xool ak bët bi ko sori di ko xool bët bi ko jege di ko xool du mën a gis jant bi parce que leeraay ga day tàppe ci xar ba ak bët ya jege gaay tax du ko mën a gis ki ko sori tamit sori waay gaay tax jant bi day tuuti ci moom te fekk ëpp na àdduna bi moo waral kuy tagg yonantu bi rek na jant la bu sayru ne wa muhayyan ka shamsi min kal asfarat anhu laylatal gharraa'u nga gis ko tamit mu jamoog maam xalifa maam xalifa ne ko ka shamsi yanzuruha ra'i fa yaxsibuha bu ne ko saghiratan wa takilu tarfa min amami kon yonantu bi kenn xamu ko xam ca nag mën naa ne mais xam lépp mënta ne la kon yonantu mooy maktuum su boobaa tamit ki ko war a donn ci waliyu yàlla yi moo war a nekk maktuum cheikh na tijaani mooy maktuum keroog bañ ko ràngalee tabaarakallaahu maqaama ba mu laaj yonantu bi ne ko maa maanaa maktuum lu ko yonantu wax dafa ne ko alladi katamahu llaahu an jamihil xalaayiqi si waa seydina muhammad kon yonantu bi rek moo xam cheikh na tijaani waaye du malaaka du du nekkul waliyu nekkul tab taalibe bu ko jege kenn ku ne xam ca man naa ne mais xam ko mënta ne mooy borom maqaamuhul maktuumu an kullil wara siwa nabii maa waraahu waraa kon loolu ngay gis ñeenteel bi ba juróomeel bi mbooleem sharia yi fi nekkoon doore ci yonentu yàlla noox ba ci yonentu yàlla isa mbooleem sharia yooya sharia bi yonentu yàlla muhammad moo ci gën a tasaaroo ñee seen sharia ya benn gox rek aw nit bu doon léegi mën nga wax ne bu doon làmp làmp la boo xam ne mënul paase saal xam nga làmp saal bi mënul mënul leeral peron bi mënul leeral mbedd mi bu fekkee tamit làmp véranda la mënul passé véranda bi waaye nag ki yore làmp boo xam ne dafa taxaw taxawaayu jant tiim ñëpp di leeral ñëpp kenn la mooy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ki ko war a donn tamit ci waliyu yàlla yi dafa war a yore làmp boo xam ne war naa leeral mboolem àdduna ak fu ñu mën a nekk moo tax gis nga yeneen yonantu yi ku ci yàllay tudd lu may gay rëy rëy dafa ne passé wut nitam ña xoolal ba mu tuddee yonantu yàlla noox lu mu wax laqad arsalnaa nooxan ilaa qawmihi kon yonantuum gaag li mission bay yàgg ak la muy rëy yëpp ilaa qawmi yi la jéggi wut ko ba muy tudd yonantu yàlla Huud lu mu wax wa ilaa aadin axaahum huudan ba muy todd tudd yonantu yàlla saalihu lu mu wax wa ilaa samuuda axaahum saalihan ba muy tudd yonantu yàlla Shuaybu lu mu wax wa ilaa madyana axaahum Shuayban ba muy tudd yonantu yàlla Luut lu mu wax dafa ne wa luutan id qaala li qawmihi ba muy tudd yonantu yàlla Muusa ak maanaam Haaruna lu wax dafa ne idhaba ila firawna firawna mooy nitam ñi rek passé wut ko waaye ba muy wax ak yonantu lu mu wax wa maa arsalnaaka illa kaafatan linnaas ñëpp rek kon ki ko war a donn tamit ci wëlliyu yàlla yi noonu la mbiram mën a war a mën a demee li ko may du wér kon dama ne juróomi continent ci àdduna bi yëpp maanaam chariatul islaamiyya yegg na fa yegg na ci nit ñëpp yegg na ci suuf yëpp yegg na ci gox yëpp kon tamit Cheikh na Tidiane mi ko donn faw tariqam ba dana tasaaroo ci juróomi continent yëpp ci nit ñëpp ci suuf yëpp ci gox yëpp bu ko mooyee yeneen tariqa yi ab gox rek wala ab koñ wala ab maanaam aw xeet waaye tariqa bu dar kàpp àdduna tariqa tijaan rek ko am moo waral boo ko xamut moom moom ak moom ak moom ak taxawal julli ñooy ñooy lëkkalikoo dama ne foo dem ci àdduna bi sànni sa noppam nday joor dégg benn waaye di li xam ne xadd xaamati salaatu wallaahi boo sànnee sa noppam càmmooy danga dégg il faatihi limaa ñooy ànd duñ teqalikoo mun duñ teqali ko mukk moo waral màkka tey ña fay nekk contre tariqa bi terewul tey ña ngi fay lal malaanam wasifa foo dem tey ci àdduna bi ñu ne ñoo gën a bañ tariqa tijaan terewul ña ngi fay wasifa ñooñe nag tey goxi àdduna bi tasaaroo maam xalifa way ko ci ñetti bayti ne amat fuyudaatu haza cheyqi sayidina ahlal basitati ahlal badwi wal xadri fi siini wal hindi asraaru tariqati ma anwaariha fi rijalin kummalil xurari fi sharqi wal garbi wa duniyal jadidati ma ufqi samaai ka daw i shamsi wal qamari duniyal jadida mooy nouveau monde mooy an mooy mooy tey Amérique kon fu ne ci àdduna bi tariqa tijaan hegg na fa Hind Siin Amérique fu ne rek boo demee Asie ma nga fa nga bàyyi ko fa dem Amérique chimal ak janub ma nga fa nga bàyyi ko fa dem Europe te tariqa bi teel na faa yegg rawatina réew mu ngi tuddee Belgique lu teel la fa tariqa ba yegg ay tijaan daje comme nii ngeen def dugg génn kër looyee ko di fa fa borom kër gi ne dangeen ni génn kër gi bu ngeen bàyyiwut fa mu tëdd ba guddi gént am jëmm ju ko feeñu ne ko boo génnee sama taalibe yi ki sa kër gi ma ma teqale sa jëmm ak sa baat mu ne ko yaay kan mu ne ko maay Ahmad Tijaani di sayyidul qawmi waa ji xëy laaj ñam lu yewoon ne ko waaw yéen seen sëriñ bi nu tudd ak nu mel ñi melal ko ko wax ko tur mu ne kooka moom feeñu démb may leen kër gi kon kooku mooy Cheikh na Tidiane tariqaam bee gën a tasaaroo ci mbooleem turuq yi bi ci tegu mbooleem sharia yi fi jaar yàlla tudd leen ne sharaa lakum min addiini maa wasaa bihi nuuhan walladi awxaynaa ilayka wa maa wasaynaa bi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu diin yooyu yëpp sharia bi yonentu yàlla muhammad moo ci gën a woyof moo ci gën a woyof ci lépp nag buy lu ñuy def moo ci gën a woyof muy lu laaj ñaq buy lu laaj ñuqi tamit moo ci gën a oyof buy lu laaj ñukki ñukki tamit moo ci gën a oyof seetal ci ñuqi sariya yi jiite woon sariya bi yonantu bi seen asaka xam nga ñaata la ruboxul maal nu sa alal mën a toll ñeenteelu xaaju alal ba ngay génnee boo amee 4 million benn million ngay génne asaka soo amee 40 millions 10 millions ngay génnee asaka xam nga lool diis na xeetu yonantu bi nag boo amoon million 25 mille rek ngay génnee soo amoon ñaar fukki million looy génnee 100000 francs xam na. boo seetee tamit sariya ya ko jiitu woon kenn ku ci nekk foo jullee fu nekkul jumaa wala jàkka wérut boo jullee sa tool du wér boo jullee sa biro du wér boo jullee sa place du wér jàkka ja rek loolu bu ñu ko bëggoon def tey fu ñu ni jëm yàlla na jël yonantu bi def ko suuf lépp muy jàkka foo jullee wér na ña ko jiitu woon ku ci sa yére am sobe jël ko dugal ko ci machine bi mu fóot ko du ko du ko arrangé du ko tax a set jël ko dugal ko ci paan di ko fóot du ko tax a set da ngay jël yére bi fa sobe bi toll rek nga xotti ko jëlaat daaxaat ko ca métti na yàlla nag ñëw jël yonent bi ne ko sariya bi ma la indil dafa yomb yuridullahu bikumul yusra mais wala yuridu bikumul usra wa ma jaala aleykum fi diini min haraj su boobaa kon nag borom tariqa ba ko war a donn tariqaam ba moo war a gën a xoyof ci mboolem tariqa yi li ko may du wér moo waral mboolem turuq yi fi mos a jaar ba ba may wax ak yow tariqa Seexna Tijaani moo ci gën a xoyof tariqa yi ci bëri bala ngaa def da nga julli ay rakkaaya bu paree na nga door a jël sa kurus def ay dog boo xamul sens da nga def dog ba dog da nga yor dog ba dog seex nag andi la ñetti téeméer rek yoo xam ne bu sa làmmeñ gaawee fukki minute ak juróom bu yéexee ñaar fukki minute nga doxi sa soxla téeméeri astaghfirullah téeméeri salaatu na bii boo man kum wirdo la téeméeri laa ilaha illallah dama ne lii man man nga koo def bi maanaa ci fukki minute ak juróom kon wirdo wu xoyef la ta matale comme ni shariha bi yonantu bi woyofee ta matale lahu xafifun min al awraadi yusilu man qad laasama al ahda xaqan lil futuhaati mu ci gën a woyof bi ci tegu tamit mbooleem shari mbooleem shari'a yi fi jaar ak yonantu ya ko doon kondir yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo ci ëpp ay góori yàlla góori yàlla yàlla xasaxoon ca gannaaw sayduna muhammad xajuñ ci benn yonantu ca gannaawam nga ku dul bi rek moo leen attan waaye tamit boo ko seetee góori yàlla yàlla xasu ci gannaaw Seydi Ahmada Tidiane xajuñu ci gannaaw genn góori yàlla ku dul Cheikh na Tidiane liñ soxla ci njox seex rek lañ ko mën a jox. seetal tey yonantu bi ku mel ni Aboubacar mi yonantu bi taxawoon cité ne jant bi tiimut ku ma gën ku maanaam gannaaw Aboubacar jant bi tiimut ku gën Aboubacar sama gannaaw man yonantu bi. booba nga neel rëy na xoolal tey ku mel ne Omar Xataab mi yonent bi taxaw ne Omar mbedd mum jaar ñeent fukki fan seytaane du fa jaar taxaw ne alxaqu maa Omar xaytu maa kaana Omar a ngi ànd ak dëgg fu mën a nekk. xaw seetal ma ku maanaam ne maanaam Ousmane Ousmane Seydina Ousmane ki nga xam ne mbooleem saxabaay yonent bi moo ci ëpp kersa nee na keroog ba ma jaayanteeg yonent bi sama loxo bi teg ci loxoom ba. ba ni ma xëy sàngoo suuf sama loxoom ndeyjoor mosuma ko teg sama kanam bañ na ko ba mu daan sangu sax day banku tabaarakallaahu nekkoon koo xam ne kersa imut ceeg doomu aadama moo tax yonentu mos a toog luppam feeñ aboubacar ñëw defaruwut omar ibnu xataab ñëw defaruwut Ousmane ñëw rek mu defaru nam toogee woon sayyidatuna Aïcha ne ko waaw su ma ñëw defoo defaruwoo ah, omar ibnu xataab ñëw defaruwoo Ousmane ñëw ngay defaru lu ko waral mu ne ko Ousmane yàlla da ko rus malaaka yi rus ko kon man mi yonantu yàlla faw ma rus ko Ousmane ku am kersa la xoolal ma Ali ibnu Abi jëmbi xam-xam ja mi mu daan wax ne ana madinatul ilmi wa àll aliyu baabuha ponkal yi dañoo xaj ci gannaaw ak yonantu yàlla Isa xajuñ ci gannaaw ak yonantu yàlla muusaa xajuñ ci gannaaw yonantu yàlla Haruna liñ soxla ci ndox kenn leen ko mën a jox mooy Sayyiduna Muhammad kese waaye tamit dama ne la góor yàlla yi nekk ci tariqa tijaan xajuñ ci benn tariqa bu dul tariqa tijaan xajuñ ci genn góor ak yàlla ku dul Seex na Tijaan yi lañ soxla moo leen ko mën a jox dooree xal ci Seydi Aliou Harasim mam joxoon turu yàlla wa ismulaayil azam ne ko demal ba Madina nga mën ko faa sikkaree leer gi attanut ko mu dem ba Hijaas foog na yegg na maanaam sikkar turu wa turu wa daane ko leer lekkatut naanatut yëngatootut ñi foog ne dee na ndax ñu ne ku lekku naanoo yëngatoo dee nga gas pax ba pare di ko suul seex nekk ca faas ne dafa nu xayyi dafa nu saaxibi huwa xayyun rob nañ sama àndoor bu fekk ma ngay dund kooku dafa xaj ci gannaaw kenn ku dul seexu tijaan seetal ma tey ku mel ni Seydi Aliou Tamasini ma nekkoon ca Tamasinata daan bay toolu tàndarmaam bi ba mel na mu war a mel mu jël cëgg ga ci gën a baax ne ko maa la bay ba nga ñor mais xëyoo ma lekk la sànni ko ne ko dalal ci kanam Cheikh na Tidiane ay junnee kilomètre mu taxaw ci kanam Cheikh. seex xool ko rek ne bëxloo lii tamaasini yi bëxloo lii tamaasini yi lii de sama dof bi tamaasini rek moo ko def loolu keneen la demal seetal muhammadul gaali seetal muhammadul misri ki liggéey jaami am du misri demal nga seeti tey bu la ñooñ sore seex omarul fuutiyu seetal maam alaaji abdoulaye ñes seetal seydil haaji malik seetal seex abbas sàll ak ñu mel noona kon dama ne góori yàlla yi nekk ci gannaaw cheikh liñ soxla ci ndox seex rek leen ko mën a jox moo tax Cheikh Gassama ne gox boo man di dem daa fa fekk ndongoom lu mat sëriñ sëkk gaa yi ñi na teg moom kooku mooy Seexu Tijaan ka misli cheyqi harrasim wa ka raawiyul hasim wa alawiyu sama alim wa bu taalib habiballah wa man xaasoo maqaamaatin min aqtaabin muqiimaatin wa naaloo minhu xaajaatin bi ifdaalin bi iznillah seex rekk a leen xattan ba ca tegu mbooleem sariya yi fi jaar sariyaab sayduna muhammad moo ci ëpp boromi xam-xam moo ci ëpp tamit ay nitu yàlla tariqa yëpp tariqa Cheikh na Tidiane moo ci ëpp ay boromi xam-xam moo ci ëpp ay nitu yàlla te nag boromi xam-xam fu ñu bëri njuba nga fa ay nitu yàlla fu ñu nekk yërmandéeng fa njub nag ak yërmande duñ teqali ko alquran ba alquran jeex foo jàngee waxu dan lu cay tegu wa rahmatan duñ teqali ko ku nekk ci njub ñi yërëm la ku teggi njub kenn la yërëm kon moo waral saa yoo duggee ci tariqa bi boo ko yëgee boo ko yëgut dugg nga ci tariqaam njub saa yoo dugg ci tariqa tijaaniyee boo ko yëgee boo ko yëgut dugg nga ci tariqaam yërmande ku dugg ku ku jël gaal ak njub teeri yërmande teeru ci yërmande kon loolu moom la yàlla jagleel ko moom Cheikh na Tijaani Cherif radiyallahu taala anhu mu des nag léegi kon Cheikh moom toog di ko nettalee leneen yàq wax la ni yonantu bi ñàkkee ndendandoor ci yonantu ni la Cheikh na Tidiane ñàkkee dendandoor ci wëliyu yàlla yi kon loolu moom leer na moo tax benn bis mos naa dégg benn waa ju rëy ngaam di tëkkale Seexu Tidiane mu ne Seexu tijaan ak diw ma ne ko xanaa dangaa juum xanaa seex Badiane ngay wax waaye du seex Cheikh Tidiane wax ma rek xanaa seex Badiane ngay wax Cheikh Badiane ko la neex tëkkale ko waaye Cheikh Tidiane kenn du ko tëkkalee kenn kooku moom matul kalaam mu des nag lim ñu andil Cheikh na Tidiane lim ñu andil lépp ci sunna la tegu léeg-léeg nit yar sikkiñ sol ci gu cëkk commencé di kontu nan ci bidaa ngeen nekk ak nangam ma ne ah ku héenewut sa bopp colaay gu mat doo héene yàlla diina ju mat ku sa colaay manqué foo jëlee diina ju mat bala ñoo sëlmal nga jug dem doo tasab sax ak yeneen ya ca aju kon jàppal lim ñu indil tariqa bi li ñuy def yëpp tijaan bu ne bu xëyee balaa tëdd fukki yëf lay def fukki yëf yëpp alquran wax na ko sunna wax na ko bi ci njëkk mooy da nga wirdo booy wirdo fa nga ubbeeku a'uuzu billaahi min shaytaani rajiim def fatiha def astaghfirullah téeméer def salaatu ala nabi téeméer def laa ilaaha illallaah téeméer jàllar bi lii ba nga koy def ak da koo jëlee ci sëriñ lii boo seetee bi nga koy def dafa am lim lim ba mooy téeméeri astaghfirullah téeméeri salaatu ala nabi téeméeri laa ilaaha illallaah lii boo koy def am na ca yoo xam ne danga koy biral am na ca yoo xam ne tamit danga koy yeelu yii bi koy def tamit léeg-léeg ngeen def géew wër benn malaan di ko def ak timit boo koy def léeg-léeg nga ut benn jumtukaay bu ñu tuddee kurus di ko ko defee lii lépp nag alquran wax na ko sunna wax na ko muy lu leera a leer a leer soo ma dégloo ma farañ fàncale ko par benn ndax allaya naxtul xawaafi min mawaadiiha wa ma allaya ida lam tafhamil baqaru bi ci njëkk ci fukk ya yow mi jàpp tariqa tijaan yaa ngi ubbeewoon aoudu billahi min asheytaani rajim aoudu billahi min asheytaani rajim ji astaghfirullah moomut ko astaghfirullah jërut wax a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim mais fatiha ko moom te loolu alquran nañu ko digal yàlla wax ne wa ida qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaytaani rajiim saa yoon nammee jàngati alquran na nga ko na nga ko ubbee maanaam wax a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim ngir ñaar bala ngaa jàng alquran fekk sa làmmiñ waa ngi tilim mën naa am ci ay jëw mën naa am ci ay fen mën naa am ci ay xaste mën naa am ci ay rambaaj waxal a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim jublu ci maanaam laabal sa làmmeñ wi bala ngaa jàng téereb yàlla bi ñaareel bi tamit téereb yàlla bi di alquran moo taxaw taxawaayu kër yàlla jaam bi jóg ngir bëgg koo jàng pare na ngir dugg kër yàlla ñaareel nag ku jug pour dugg kër rawatina kër yi xaj dana la baw ñu fonk xaj lañ su boobaa nag boo fi nekkee xaj bi baw la ngay xuloog moom di xeex ak moom sànniwante ak moom ay matt wala yëre yu xotteeku xaj na ci wala ay daw xam nga nooy def boo bëggee noppalu waxal borom xaj bi mu wax ci xajam bi rek su boobaa na nga ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim yow yàlla laqoo naa la xaj bi kaay wax ci moom damaa bëgg dugg sa kër gi looloo tax nga ubbee ko ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñaareel bi tamit a'udhu billahi minash shaitanir rajim moom alquran saxal te wax naa la ne ki ko moom mooy fatihatul kitaab fatihatul kitaab mi nga xam ne man ngaa wax ne moo gën ci alxuraan alquran téeméeri saar la ak fukk ñeent waaye alquran mooy sangi saari yi fatiha mooy sangi saari yi alquran yi fatiha mën ngaa wax ne mooy alquran fatiha yàlla la soob xeetu yonantu bi rek ñoo ko am yeneen xeet yi jiitoon kenn amul ci fatiha comme ni nga xamee ne xeet ya ñu jiite woon kenn amutoon tiib amoo njàppuy tiim xeetu yonantu bi rek ñoo ko am xeet ya ñu jiite woon amuñu woon julleeg niiw bu niiw génnee àdduna dañ koy ñaanal waaye amul jullee xeetu yonantu bee ko am moo tax yonantu bi ne law kaanatil fatihatu fi tawreet maa tahawwada qawmu qawmu Muusa walaw kaanat fil injil maa tanassara qawmu Isa